ngun ngar ngar ngar ngucing ngin karang hananan ngat nyongol nyongol ya sangala nyongol ya nyongol nyongol ya sangala nyongol ya nyongol nyongol ya sangala nyongol ya waaw li ngeen doon xoolee li ngeen di def naan ko waaye eh eh eh eh yéen xanaa wóoru de. waaye ñu nekk ci weeru koor góor ya jigéen ñëpp tax di koor yi raa. wala jaay yi naan lii par lan machine. wala wax ak ay jaay xam nga. waaw tiir maam yàlla xool.

mais li mu wax dëgg la na jigéen ñi taxawee nii góor ñi taxawee nii mais xel moo garaaw li muy wax wax la dëgg ah mais lan la eh, na jigéen ñi taxawee nii eh li mu wax dëgg la waaye li mu wax dëgg la waaye li mu wax dëgg la waaye waaye na jigéen ñi taxawee nii góor ñi taxawee nii oho waaye ko lay ci biir mais xam nga def ah les chauffeurs ci jël porte arrière ak porte avant léegi yéen góor ñi fële ngeen duggee yéen jigéen ñi fii ngeen duggee par force foofu ngeen duggee par force bàyyi la noonu rek na góor ñi def na góor ñi def naka sa dëkk na góor ñi dem dem leen dem leen dem leen nii rek acca dem leen acca acca dem leen. non yéen dugal leen nii wax na dëgg dugal leen nii non non sa waay demal na. weeru koor nga weeru koor yaa tax nga ñàkk fay dem leen ak yow kanam bon kenn xamul góor nga kenn xamul jigéen nga. yaa koy liggéey à la façon. yéen a ma gën a am nga yabaat. papa yaa ngi doxoon téeméer. waaw waaw bi bind na ko ci ginnaaw. kon si si ginnaaw. ah waaw waaw jërëjëf. am naa sànq. ok merci ah. jërëjëf doom yal na yàlla guddal soo fan. merci. Eh, eh, eh, yéen xanaa déggoo leen li ma wax si suuf man dama leen dimbali rek ngeen nekk ci raa bi góor ñi tàmpali koo fii jigéen ñi tàmpali koo fii loolu dafay yëf jullit ngeen nekk ci weeru koor loolu bu dul weeru koor sax waruloon ko def ñàkk fayda bi bu ko dee. waxuma leen paa yi toog fii jigéen ñi toog fii waxuma leen lool. e eh, góor gi yow góor nga wala jigéen. kan yow. man nga naan la wala jigéen. yow laa góor nga wala jigéen doo ñëw sa moromu góor yi. man ci góor ñi laa toog di. góor ñoo toog xool sa war a fa nekk. yow ci biir jigéen ñi naan maa ngi ci góor. Eh, sa moromu baay la waaye. baay la. wax. toog ci jigéen ñi naan ay moromu baay jogal. yow koor gi jàpp na la de. <laughs> waaw waaw man moom koor gi jàpp na ma de. man kenn du ko def nii baaxul. waaw bàyyi ma toog nii. jogal foofu waaw sa morom nag de. jogal foofu laa. ba bàyyi na ma toog. jaam gën a yabaat. eh. ah léegi ngay wax. yow tuuti nga li jënd lii. Sénégal sax bu ñu rek la lii ban jamono yu neex ba léegi. tataay góor a jigéen ñoo jaxasoo yow ko bëggoon li jënd. jogal lii dañ ci war a wax laa wax. kaar gi kaar yi fi mu doon yi kaar yaa ngi toog dañuy woo ba ngoon nekk ci kaar yi di tampalikoo ñii di jàpp. Eh, eh, xam foofu nga toog laa ci góor ñi ngay toog weeru koor bu jotee ci góor ñi ngay toog jigéen ñi ci jigéen ñi ñàkk fayda bëgg a def parce que ni ko jigéen ñi rek dugg ci tataay bi yaa moom tataay kaay nii rek. tata bi yaa ko moom. moom ko tata bi moo ko moom. doo jóge ci doo jóge ci jigéen. non ah, ah. ah, waaw na jóge fii di soog a biir jigéen ñi. waaw d'accord di calme bàyyi noonu. doo jóge ci biir jigéen ñi. góor gi kaay nii. sëñ bi barke bàyyi ma ma toog. manu bàyyi leen ma ma toog. non kii dafa réew de. Sénégal sa mënuñoo rek la tata góor ñu beru jigéen ñu beru. force maa koy réglé par force. Ah. Ah, dama laa ah, ñaan rek wuy ma dama laa ñaan rek. góor bi ñëwal ñëw ñëwal daf fi jox laa day jox jox force. kaay kaay rek day jox laa waaw nga toog yow tamit xam nga ma bàyyi rek yow yaru woon dara waaw ak sama weeru koor bi baalu ma la. man it baalu ma la. baalu ma la woor ba pare. da ngay da ngay réew réew. jaamu ko réew. ah woor ba pare toog ci biir jigéen. waaw waaye bul dóor de. toog ci biir jigéen. ah nga la maa dóor. doo toogal de nga la maa dóor. doo toogal de nga la maa dóor. doo toogal de. doo toogal de yow xam nga bii de. ini. kami? Saan kami? man na waa mais sa waay li muy wax dëgg la mais góor ñi jigéen ñi war nañuy jaxasoo wax na dëgg la. yow da ngay faral. non faral ma damay wax rek li la ci damay wax li la ci rek. mais sëñ bi ba ni ñu koy waxee ba waxee pour da ngay bàyyi. góor ak jigéen daal war nañoo jaxasoo. doon dàq. sàmm baa ngi waaw li ngeen ñuy xoolee ni dina mi def nànk ngeen ñuy kulli seen bët yi. salaamaaleykum. loolu mooy la. ticket yi laa soxla. ah ticket. te naa ticket ba ko ah, ah. ah yow doon yow doon te ticket doomu ma ma ngaa góor gi ticket laa soxla ticket. ah moom benn laa la ko.

oo jàmbaar ticket bi ñaata yoon laa la yee jox ma sama ticket waay. ticket bi laa la laaj. ticket bi la laaj. day ruube de day ruube. dëgg la laaj. moom mii naan day réglé tata bi day réglé tata bi yow kay réglé ko foofu. yow foofu naan. am na ñam bu rëy bii ñu yor. waaw jox soxla bi ruube daggul ticket. ticket baa ngi nii fàttali naa ko. ñoŋale ñoŋale yàggal gasal. sangale ñoŋale yàggal gasal. ñoŋale ñoŋale yàggal gasal. sangale ñoŋale yàggal gasal. ñoŋale ñoŋale yàggal gasal.